dañu waaw waaw suñu sëwër xel góor góor bi am leen bisimilah ku bëgg ndox am bisimilah dañuy teg Malar Ndiaye Malar Ndiaye ba ñu ko doori Malar Ndiaye Malar Ndiaye waaw taalam waaw

aywa laal bis. bis laal buñ dem yóbbuñ sëñ bi nekkul ñu dox buñ doon rek. waaw buñ dem yóbbuñ sax lañ. incha allah Diop ndax jamono barke Serigne Thial Ba bis la laal bis xanaa ma lii rek mini bis. yàlla Diop ndax jamono. waaw barke Serigne Thial Ba. moo nekk noonu de waaw. mu ne dexal ko muy nii baax lool. benn la benn la daal otoom. ne ma ba xel koom jox nu ay bernde. Ah, Mohamed den ambassadeur bi ku ne xam ne ab jëwel la ah. su ma waxee dama war a wax waxut dama war a barke sëriñ bi ànd ak sama jëwriñ si mu ne ko doo fay dara moo ko fay bu Gambie ñoo indi ko xel bis lañ ah non si sal teral lañu ma ne ko sëñ Saalum teral nañu. ñoom ñoom lañ ne. waaw séddale bere yi. aywa laal biis. biis laal. buñ dem yënguñ. sëñ bi dëggul ñu dox. loolu rek waaw buñ dem biis laal. maa ngi tërbee sëñ Saalum. yàlla na seen jàmm yàgg fàtt suñu ko. wax rek ngeen ñor. fi ngeen ñoree fi ngeen war fii rek ngeen war a ñor fàtt suñu ko. dengan dimagi kita di kesan sering hari batu dan sering dengan pas-pas sembulir ini udah mau beli game dari sini saya ambil itu habis dan itu jadi sini tuh ini Nang jaman nang nang dise dulu. Arti gaal baa ngi noonu kon ñoo dimbali doo ko tax moo ji ñu ko liggéey ba mu toll nii de walaay wax nañu ko àgg. waaw ñun daan njëriñ liñ fay ñëw di taxawal. yàlla ba sëriñ bi soppi ay xéwal yi àndoo yaatu yaatu soppi soppi ba ci mboolem bi. waaw. Saare bu baax nga jamono moo nekk noonu barki sëriñ Saare xéwal yi nga xam ne moom la baaxoo di yóbbu ji daal di sëriñ bi. jaar nañ fu bëri ne tey jii doon tombé ak Serigne Fallou Diouf comme ni nga xam ne borom baax la nekkal fi bi ci waaram arki Serigne bi incha allah ku ne xam ne ne nii nii yàgg def ay teraanga ci daara Serigne bi ñu koy ñaanal ci barke Serigne bi yàlla na Serigne bi doole ay xéwal barke Serigne bi ambassadeur bi nag. sant Serigne Saliou Mbacke suñu waa ji daral la fas yéene dem liggéeyal ko ñaan nag mu nagoo ñu. italien kay moom kenn moom mooy moom mooy sant boppam mooy ñaanal boppam lii bu def ci liggéey Serigne bi la ko def waaw ah, te bu def ci liggéey Serigne Touba ah raw rek ba faaw Seydina Ousmane li mu defoon ba ba mu am lii mu am ci. الحمد لله بلا انتهاء ابن عبد الله في البهائي براعة المختار ليس تقفى إلا على من بنكام يخفى